si lu bari su xale amee feebaru Ebola yaayam moo koy toppatoo te luy xew bu boobaa soxna si dina feebar teg si kan mooy toppatoo soxna si maam bu jigéen bi mbaa ku bokk ci njaboot gi teg si xale yi mën na nañu jël ci jàngoro ji ak ñeneen ñiy laal nit ku feebar ki nii la nit ñi di wàllante Ebola si biir gox bi te jàppal ni suñu amee xibaar bu dëggu ànd ak suñu docteur yi dinañu mën a aar suñu bopp ci Ebola